sëñ Fallou tedd ngay jikko suñ borom mënu ko koo ñàkk defal ndax waxtu yi nga xam ne moom la dogal mu feeñ jamono wax naa ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy turandoom bi yàlla dogalee lii mu dogal ci seex Muhammadul Fadal mu feeñ jamono ci guddik al isra wal mihraj te loolu ku ne xam na ne tàndale nekku ca ndax feeñe jamono daaru salaam sëriñ tubaa di sa baay di sa nijaay nga feeñ jamono ci ñaar fukk ak juróom-ñaar guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar dëppook àjjuma ci rajab yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàllay rañaane dindi ci moom njàqare ak dindi ci moom tiitaange taxoon mu rañaane ko ndax yi ko yàlla dajalee loon muy abu taalib ma doon maamam tañ ko daan xoolee moom génn na àdduna xadijatu mi doon soxnaam génn na àdduna yonent bi amatul défense mu jëm kër nijaayam ñu sànni ko ay xeer ba toj ab dojaram sun boroom na ko nag danaa la danaa la bégal ci at mi loo xamante ni jomb na waa kaw suuf rañaane ko ci ci ci ci jegeel ko distance jege goo xam ne jéggi na dayoo ndax jóge jóge jóge jóge madinatul jóge makkatal mukarama dem baytil maqdis wax nañ ne ci jamono jooju ñiy yor gëléem di ko dox danañ ko dox weer bu doon avion lu gàtt gàtt danañ ko jox trois heures de temps yonte bi def ko ci ay seconde yemut ci loolu mu jógee baytul maqdis dem ci kaw jëseeg suñ borom mu jox ko julli juróom mu wàcc kon buñu nee Serigne falilu mooy solution damay wax ne solution bi l'islam mooy Cheikh Mahamadul Fadal l'islam bu amee problème solution ba dëgg-dëgg mooy Cheikh Mahamadul Fadal waaye loolu mu ñëw jikkowoo ko ci ni nga waxee de ab sërif nga xam ne yonte bi mooy maamam ci ñaari weet yëpp ndax boo indee kër baayam rek indi nga kër ndeyam ndax baayam mooy nijaayam yaayam mooy bàjjanam kon yaakaar naa ne loo loo indi la loo taxoon moom mu ne may sëñ Touba maay sëñ Touba ji day moom ci zahir waaye di moom ci ci ci baatin kon bu yàlla dogalee moom Cheikh Mamadou Fadal mu defal boppam ak xasida goo xam ne lu mu ci jublu woon mooy jamono xat na jamono xat na xataay boo xam ne ci njàqare lu dal jullit yëpp njàqare lu dal jullit yëpp Cheikh Mamadou Fadal def tawasul ci boromam def tawasul ci boromam wax it yàlla ginnaaw bu mu ko tuubalee ba toroxlu ci moom ba noppi nag mu wan ko ne ko njàqare jullit yi ne dañee ci man njàqare jullit ñi dañee ci man kenn nattabliwut ne njàqare jullit yi daa dañee ci seex Cheikh Mamadou Fadal 1945 bi muy doon xalif général des mourides booba guerre mondiale bi day jox soog a jeex 39 45 adduna bi ci boppam nekk ci crise mbas mi wàcc balaa bi bari rafle bi bari nit ñi rakkal ji ñu doon lekk ak gomus gi ñu doon lekk tàmbalee génn ci seen yaram wi def ci ay picc kenn mënatut a génn ndax amoo loo sol bi sëriñ Fallou toogee ci réew mi dindiwu ko ci tabax ab post de santé wax na na ci nit ñi pikiru dindiwu ko itam ci bindal leen ay téere jox leen ko ndax boobu àdduna bépp la daj sëñ Fallou Touba la toog na rafle mot ragg mot lépp àndandoo génnandoo réew mi te 45 ba 1968 déggatoo rafle déggatoo xiif déggatoo jenn jàngoro joo xamante lor na doomu aadama yi kon bu ñuy wax ne solution solution dëgg dëgg solution réew mooy Cheikh Mamadou Fadal xaas la ci ñun xaas la ci Sénégal ñu am sëñ Touba xaas la ci Sénégal ñu am sëñ Touba waaye xaas la ci biir yoonu murit ñu am sëñ fàllu xaas la ci biir yoonu murit ñu am ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal wax nga ko léegi nee nga bu nit jàqee ba ñëw ci moom moom mooy xun mu fàqir yi njàqare lu ñëw ci moom sëñ fàllu dàq na ko loolu def na ko ba tey wax nañ ne sëñ Cheikh Mamadou Fadal xese yëpp nettali nañ ko ñëpp nangul nañ ko am na naar boo xamante ni góomub robaale la am ñëw ci Cheikh Mamadou Fadal wan ko ne ko góom bii day góomub robaale ci man fu ne yóbbu naa ko fa mënta wér sëñ Fallou defalu ko lenn lu weesu bindal ko ci aw kayit na ko góom bàyyil naar góom bàyyil naar rek la ko jox takkal ko naar bi naar bi dem tàggoog góomam boobee ba ko tàggoo di dañ kumpe këyit wa defe ne war naa mën a am day bi boo ëllëgee comme daal mu bindal la ko fekku ci dara weesu góom bàyyil naar kon yaakaar naa ne eh, bu jamono xatee ba toll fii ba toll fii ñu dëkk mël màggalu kasu rajab ñu dëgmal màggalu kasu rajab Sénégal gépp war nañoo am yàqiin wala ñu am raf njort lu rafet ci ne sun pas-pas bu dëgëree <clears throat> bu ñu waree màggalu kasu rajab bekkoor ak njaqare ak balaa génn ci àdduna bi waxuma la génn Sénégal waaye day génn adduna ci àdduna bi ci daraja Cheikh Mahamadul Fadal rawatina liñ fiy jàng ci alquran di ko fi jàng ci ay xasida di ko ci def ci ay salaatu ala nabi di ko def ci bernde ci lépp ñu def ko ngir jëmmi yàlla ji yaakaar naa ne euh, euh, solution monde bi Sénégal lañ ko Sénégal la koy ci Sénégal lay jóge te bu jógee ci Sénégal Touba lay bàyyi koo te bu bàyyi koo ci Touba xaas je xaas ja dëgg ci Cheikh Mahamadoul Fadal lay bàyyi ko ca loolu yaakaar naa àdduna nangul nañu ko kon sëñ Gana ñu ngi lay sant bu baax a baax ci ni nga ñu andil tomb jikko ju rafet ju Cheikh Mahamadoul Fadal Mbàkke waaye dafa desaat leneen loo xam ne sañ Gana sëñ Fallou da ko rafetal mooy diggam ak ak ay bokkam la ko tàmbalee ci Cheikh Mahamadoul Moustapha nga xam ne musta wax mu lu dul sama mag ju baax ji la ko tàmbalee ca maam Thierno Ibrahima borom daarul muti ma ko jàngal mu jël xalimaam def ci moom ay bayit ak mbooleem ëtti sëñ Tuubaa yi sëriñ Fallou alaaqa bi ñu amoon ak ñoom ba kër goo dugg fekk muy sëñ Fallou yi kese laa bëggoon nga ñëw ci tuuti ñu su ko jàllal ci beneen dal ñu ko waxee woon léegi rek wax naa ko barki démb ca plateau ba ca Dakar mhm. ma ne sëñ Fallou dafa am lim am ci sëñ Touba ba noppi te fu sëñ Touba amaat dara fu ne mu amaat fa diis pour cent 10 nag waaw amaat na fa 10 pour cent mhm. ndax dafa nungu la fa nekk ba noppi sàkku fa ba mën ko am euh, digganteem ak ci bokkam mhm. ko waxee boo xoolee tey Cheikh Mahmadul Moustapha sama mag ju baax ji la daan wax mm-hmm. doy na ca Cheikh Mahmadul Moustapha Mbacke Fadilu mm-hmm. mu duppee ko ko jox ko mu yar ko mm-hmm. def ci moom lépp jikkoom ji rafetoon moo ko mu doyloo woon ko ba moo wutal tayif googu aw tur moom Cheikh Ahmadul Fadal te rafet jikkoom a ko mayoon woowa melo ak doxin nga xam ne euh, Cheikh Moustapha wóolu na ko doyloo ko ci ay jikko ba da daan wax ne sama Euh, sama doomi sëriñ nga xam ne sama doomi sëriñ la ko daan mandargaale mhm. ngir wu rëy wi nga xam ne nekkoon na ci moom kenn ku ne xamoon seen diggante ñoom ñaar muy Cheikh Mamadou Moustapha waaye Cheikh Mamadou Fadal ci doyloo ko ak wóolu ko ci lépp mhm. loola it moo xew ci digganteem ak Cheikh Abdoul Bachir mhm. nga xam ne daana bàyyi ko tuubaa di dem tiib di ko fekki Cheikh Mamadou Bachir daan ko fekk ci lépp lu mën a doon ba tey jii boo tabbee ci biir kër Cheikh Mouhamadul Fadel fekk fa turandoo woo xam ne Cheikh Amadul Bachir lay tudd loolu jikko ju rafet ko waaye boo demee ci Cheikh Mouhamadul Lamine Baara yi sëñ Baara sëñ Falloo ko jëkkat wat wayal boppam laalaa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil almi wal juudi aw fi diini wa nasabi loolu la ko sëñ sëñ Fallu wax sëñ Fallu dane ko lef bii de yow Mouhamadul Lamine kenn jotu la ci du ci xam-xam du ci tab du ci juddu maanaam yaa ci jiitu ñëpp yaa raw ñëpp loolu la ko la ko sëñ Fallu wax ba ca biir it sëñ Fallu egg ci ne ko lillahi durruka min cheyqin xawaa rutaba qad zaanaha adabu naadika min naadika min adami wa fii fadaahiri la tuxsa wa aqrabuha ma fika min xusni axlaaqin wala xasan yaay ki nga xam ne it jikko yu rafet yi yàlla dajale ci yow waaye gis nga la ko cheikh mahamadul lamin baara wax qad fuqta kal xalqi min ojbin wa min arabin yaa man xalaa'iquhu ahla min adarabi abuka kaashifa kurbil mustajiri bihi wa anta mislu abika kaashifal kurabi sëñ baaram sëñ Tuubaa dane ko yow de araab yi ak xaajaam yi ndéggut arab ñëpp sax yaa leen raw yaa leen kawe ci jikko ju rafet yow sëñ Fallu sa jikko daal neex na te kawe na kenn mënu laa jox misaal maanaam bu ñu doon wax mu ne yow sëñ Fallu kenn mënula laa misaal ci jikko yu sell daal na ko sa bàyyi nag mooy kaashifa kurbil mustajiri bihi ku ma sa jàq ñëw ci sa bàyyi mu tàggoog njàqare ja wa anta mislu abika kaashifal yaa ngi mel ni yaay yow yaa mel ni yaay sa baay yow sëñ Touba loolu la ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Xaadimu Rasul wax ci jikko yu rafet yoo xam ne meloon na ni loolu it boo dox ci digganteem ak boo demee Cheikh Abdou Lahad tey jii boo demee kër sëñ lu fekk fa Cheikh Mouhamadou Lamine doyoon na rek Cheikh Abdou mu baax mi nga xam ne dem na ba toogee jataayu Serigne Touba waaye Cheikh Abdou Lahad kasaalika melaw woowu nga xam ne da ko da ko daan jël yabal ko ci ay dëkk yoo xam ne euh, ngir mu dem ñu xam ne kii doomi Serigne Touba la te mënoon faa yabal keneen waaye jël la moom ci cëram jox ko ko di melokaan bu rafet woo xam ne amoon na ko loola it aw doo demee ci biir këram it fekk fa euh, Cheikh Abdoul Ahad loola it moo xew ci Cheikh Abdoul Khadir mm-hmm. nga xam ne tey jii boo demee kër sëñ Fallou da nga fay fekk Serigne Jili muy Cheikh Abdoul Khadir waaye mi nga xam ne mooy imam mi nga xam ne toogee na place way juróom wati ci melokaan woowu te jikko ju rafet jooju moo ko waraloon ak doxin wu sell wi nga xam ne amoon na ko noonu la meloon ci Serigne Saliou noonu la mel ci Cheikh Mamadou Mourtala biir kër Serigne Touba da nga ko fay fekk waaye noonu la meloon it ñi nga xam ne ñooy aw jigéen nit ci kër Serigne Touba kenn ku ci nekk cër boobu la la Serigne Fallou joxoon melokaan woowu la la joxoon loolu mu joxe woon ci ñooñu boo demee tey ci borom Sam Mamor Diara mi nga xam ne magi mag nga xam ne jàngal na ko ilmu tafsir gis nga aw turam a nga fa waaye yëmu ca da caa boole tabaxal ko jàkka ne defal na ko ko muy àllarbaam ba mu ko tabaxee dane borom saam day ku ko liggéeyal yàlla dana la fay yonent bi dana la fay sëñ Tuubaa dana la fay borom saam it am na fay am ci mag ñi ku ne ko yow it am nga fay mu ne ko sikkuwul moom sëñ Fallu tegal ko ca ne ko ne ko sikkuwul te boo demee ci ab ëttam da fay fekk maam borom saam loola it jikko ju la boo demee ci kër maam Cerno Ibrahima ataytu ilal miqaa yi fii daarihi l mu'ti ليشكي الشق والخبد مني بالبستي حميل خصال صابر همة حليفة ندا في حالة قائد والقائد loolu doy na ci naa tey ci kër joxe waa kon bi di maam ñaari baat yi gàtt na waaye doy na maag sama mag jii sunu bàyyi Cerno dañoo jàngal bañ na ar mu yar na bañ na nër loolu doy na waaye gis nga mbind yooyu mu jëme ci moom ak melokaan bi boo demee ci Cheikh Massamba Mbacké dégg nga la muy wax kaanama samba mu fii dal mustafid wa man jan isa manasuxat ahadu taraahum aakifina awlahu wa hammu lima sa yarmi ka annahum rubitu loolu la sëñ Fallu wax nee na njariñ luy jariñee mooy Cheikh Massamba Mbakke daana boo ñëwee fa ëttam ba da ngay fekk ñëpp boof fa mel na ñuy xaaraan ngir leen di sànni di leen ko jox ci njariñ noonu la Serigne Fadilu mel ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kepparu Serigne Touba boo demee ci kër sëñ Massamba Diop Sam fekk fa sëñ Mourou Massamba Diop Sam xool mela woowu xool doxin woowu xool jëfin jooju boo demee ci kër Ahmadou Chahir mbay maam Cheikh fekk ko fa maam Cheikh moom nga xam ne kenn bi ko sëñ Fallu ganejee da ko fàttali bay du yàgg waxoon ko ne lillahi qawmun ida xallu bi man silati xalla na daa waxalat fil jawwi anwaaru tashaqum kula ardin yanziluna biha ka annahum bi xayl ardi amtaaru yàlla am na jaam ñooñ buñ tegee seen tànk ci suuf suuf sa day naat bekkoor ba day daw mboolem xéewal yi ak yiw yi da cay wàcc waaye déglu la ko ci sëñ Fallu tegal ida laqaytahumu aw kunta zairahum bi yumnin faaraqat qadahur aw zaara id bi siyaare talqa kullu makrimatin wa tantafi bi liqaayil faqr wal aar sëñ Fallu nee waxuma siyaare waaye rommante képp boo ko defee ñoom dajeek ñoom tàggoog ñàkk tàggoog alkande boo leen siyaaree ca siyaare nga ca ngay amee tàdd nga ca ngay amee ngëneel ca ngay amee melokaan woowu tey ji boo demee ci biir këram fekk fa sëñ maam Cheikh nga xool Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ci këram tey fekk fa Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mm-hmm. jikkoom a ne ñaar laay roy li tax sëñ Fallu yemul ak kenn mooy dafa wax ne muñuk suuf taalibi baay Cheikh Ibrahima moo tax sëñ Fallu xajoo woon bang lépp ci kawam lañ koy def waaye ak taalibe it baay Cheikh Ibrahima Fall laa laa ciy roy boo demee ci këram tey fekk fa Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine yaa xafaara sunub Cheikh Aw Balla nga xam ne doyoon na ci maam Thierno rek waaye téewul boo demee tey da nga fay fekk Cheikh Awa Balla loolu moo tax ma ne la fu nekk am na fa 10 pour cent ndax jikkoom ju rafet joo xam ne mayoon na ko kenn ku nekk mu mën a jaxasoo yow ba la fa sëñ Touba am mu mu am ca ba noppi am lim am ci sëñ Touba ba noppi am lim am ci sëñ Touba séddal ko ca ñëpp mooy jal bu sëñ Touba mas a jal sëñ Fallou da ko dolli maanaam jal bu sëñ tubaa masa jal sëñ tubaa da ko dolli ba jagal ba gën ne sang moo tax ku am jal ba it tibb ca jal ba jox sëriñ Fadilu moo waral tey it ñëpp ameel ko cofeel ñëpp ameel ko neel ñëpp bëgg ko tey ba kenn ku ne nungul na ko dafa am bis may waxtaan ak seex Abdou Samad mu ne sëñ Fallou yi dafa dafa am lu kenn amul mooy moom la yàlla defal xewte doo xewi waaw ah, fekk keroog mu na man ma ko ñaanal ma mu ne ma xanaa dama lay ñaanal ci barkeb sëñ fallu daal na sëñ fallu moom moom la sëñ Tuubaa defal xew te doo xewi ku dul moom nag mën nga fee jaar ay jamono yooyu xew ñu di la tudd waaye sëñ fallu moom moo moom xew te duutu xew yi mukk loolu nga xam ne ñi mu bokkal sëñ Tuubaa sax ñoo ko nungul melokaan woowu fonke comme melokaan woowu cofeel gu réy googu moomoon ba tey jii mbooleem kër sëñ Tuubaa yëpp melawoowu la am mboolem jullit ñëpp noonu la mel te noonu alaaka boobu mel it noonu la mel ci umma islam bi yëpp boo demee ca tijaan yi mel boo demee ci xaadir yi noonu lañ mel boo demee ci ñeseen yi noonu lañ mel boo demee ca laayin yi noonu lañ mel sëñ fallu jikkoom ji rafet joojoo ko mayoon waxuma la sax jullit ñi waaye karaceeb sëñ fallu tijaanub sëñ fallu naarub sëñ fallu nang njaagob sëñ fallu lu lay sëñ fallu da koy dédd te la ko war a lool mooy sëñ fallu xajoo woon ñëpp te du tas yaakaar yi kenn ndax mela wuri wi nga xam ne yàlla jagleeloon na ko ba tax tey adduna bépp ëmbal ko ko te boo foo boo demee daaru salaam sëñ Mouhamadul Mamoun aw turono ma nga fa jikkoom ju rafet tax melokaanam wu sell alaaj sëriñ tàkkoo kenn ku ci nekk mooy mboolem ëtt yi rek dafa tudde melokaan ngir wàcce woon boppam nawloon teeg ñoom nangu la leen sëriñ Tuubaa defaloon ba tax tey ñëpp ëmbel ko cofal sëriñ Fall